ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène

Adama wala bépp Sénégal rek ak foo mën a nekk rek maa ngi lay bëgg. Mhm. Mm. am na solo voilà ñu dem seetaani revue bi daal di leen siwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mardi 27 avril 2021 dañuy wax ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko. yëglikaay bi di sunu làmb tey xëtam mu njëkk lëm ca xëy fisal bokk na ci la nga xam ne ni moom mooy combat bi nga xam ne moom mooy troisième combat boo xam ne daal maanaam ñetteel revanche la ko yëglikaay bi tu mu war a ci diggante Balla gay numéro 2 ak ka nga xam ne nii moom moo di Eumeu Sène mel ni ki nag ah combat ba daal fi mu nekk nii daa mel ni ñu nga ca de wala boog ñu nga ca daal di ko lijjanti moo tax yëglikaay bi xëy tey wan ñu ñaari mbër yi muy ka nga xam ne nii moom moo di Balla wala muy Eumeu Sène mel ni ki daal ñoom ñaar fi mu nekk nii takku nañ ba jeeg ñeneen ñoo xam ne ni tamit yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ñoom moom bëri wuñu combat revanche waaye dañuy bëri combat boo xam ne daal premier combat la ci ñoom ñaar te boo xoolee ñoom ñaar ku ci nekk daal maanam sa fi yeefu morom am nga loo fa def muy Modou Lo ak Ama Balde yëglikaay bi na bu fekkente ne bu dee kii di Modou Lo la bu bëggee dégg-dëgg ca Pikine am na fa ay ndam ka nga xam ne nii moom moo de Ama tamit fa nga xam ne moom moo de ca parcelle am na fa ay ndam sunu làmb moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne wala keneen koo xam ne yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom maanaam bi mu déparé daal di taxawal ay combat maanaam ñu foog ne dafay yem yemu fa moo get daal mu nga gën a continuer daal taxawal ay combat yëglikaay bi nee na beneen combat bu mag boo xam ne moo get taxawal na ko bokk na ci Baye Mandione ak ki nga xam ne nii moom moo di Zarko bu Grand Yoff bi xëy na tey wan ñu ñaari mbëri ci aw photo yëglikaay bi di suñu làmb moo dikk ak ñun ci lu mel ni ki noonu beneen combat boo xam ne tamit taxaw na maanaam ko ka taxawal di Xaadim Sàmb mu war a dox ci diggante Sandrep ak ki nga xam ne ni moom moo di capitaine Dina yëglikaay bi di suñu làmb ba tey ñëw na wan ñu ñaar ñooñu ca la nga xam ne nii moom moo di aw photo ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb xëy na tey dinu wax ca ka nga xam ne ni moom moo di Bira Sène ak attaques yi nga xam ne ni daal commencé na te dal ci kawam gars yi daal fi mu nekk nii mayu na ko fu mu yekkeeg nàkkam mel ni temps de grâce bañ ko mayoon wala mu giñ nga doon daal daa mel ni gars yi nañ ko a yem li ngay def te mu di ay erreur moom jàppal ko baal gars yépp dal nañ ci koom rawatina ku mel ni Pape Abdou Fall ak ña nga xam ne nii ñoom ñoom la jiite leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci muy làmbi simple yëglikaay bi ne daal soo bëggee dégg dëgg moom fa nga xam ne nii moom moo di ca gàgge sërif daal maanaam ñaari oto yoo xam ne teg nañ ko fa yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci xam nañu tamit 4 millions de francs CFA daal la ko commencé le 14 ba le 15 mai daal soo bëggee dégg dëgg daal yëglikaay bi nee na ca Joal moom loola dina fa fa am 1 million 500 tamit mu nga war a am le 16 mai ba tey ca Mbour bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu mel ni kon daal fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg dëgg moom làmb ji Sadji moom def na ko bu baax a baax a baax rubrique ba nga xam ne nii moom la tuddee Leewtoo daal këm ca xëy dalal tey moom moo di Tapha borom takk ci rib maanaam combat bi ku gën a marqué ci carrière daal jàpp na ne digganteem ak Bombardier la ndax nekk na combat boo xam ne dootu ko fàtte ba mukk mukk mukk mukk yëglikaay bi ba tey ñëw na ci lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne tamit mbërum simple la te ñëpp di ko xaar muy ordinateur la mu xamal ay supporteram daal nee na ñu pare te xaar ko après korité gi dana takk ngembam wàcc la nga xam ne ni moom moo di géew bi defante ba mu sab-sab yëglikaay bi di suñu làmb ba tey moo xëy ñëw tey diñu wax lu mel ne ki noonu Aïcha mu nekkoon euh, revue bi bu ñu fa jógee nag Babacar comme d'habitude rek dañ koy euh, dooree journal suñu làmb euh, lañ fa gis nag moo di ki nga xam ne moo di Balla Gaye ak Eumeu seen mu nekk daal une troisième revanche boo xam ne dafa tombé à maanaam nekk na ñaari yoon yoo xam ne kii di Eumeu Sène dafay am ndam ci kaw Balla Hmm, voilà loolu moom am na. parce que boo xoolee bari nañ deux fois ama ah, daan ko ñaar yëpp. defe naa loolu tamit bokk na ci li nga xam ne tey Balla Gaye bëgg na ko dindi si carrière mhm. li ko koy may nag mooy troisième revanche mhm. maanaam troisième combat bi am. loolu mooy li nga xam ne nii moom moo mën a tax mu jël revanche boobu bon lamb nag noonu la baaxoo di def mbër di nga ko daan ñaari yoon ngeen def seen ñetteelu combat mu fay. Mhm. mais ba combat bi daal li ma la mën a xamal mooy. boo xëyee dégg ñu la taxaw na moom bu mu la bett. dëgg la Eumeu Sène ak xëyee ñu taxaw na bu la bett. dee ko xaar daal.

daal di xeex. Mhm. bëri ñu xool fu mbir yi mujj ak fu wànne di mujj ak bëtam. dëgg la mhm. loolu am na solo bu ñu jógee foofu ki nga xam ne moo di moo géej moom tam daal dina uh, tapewaat encore fort rek diggante Baye Mandione ak uh, Zarko la finalisé muy ñaar ñoo xam ne nag dañ leen gëj a gis ci làmb ji waaw def na lu am am solo ah macha allah mel ni kon moo géej tamit vraiment fi mu nekk nii moom. Mhm. ah ñëw na yokku ci. xar mi karaw waaw te loolu waa làmb dañ koy soxla parce que tamit làmb ji tey mbëri dañu bëri benn xeetu bëri boo xam ne ni licence yi bëri na ba tax na fi mu nekk nii daal bu ñu gisee ku ñëw di leen jox ay combat ñiy bëre ami lu mm-hmm. ñu mën a def lu dul ne ko daal ahlan wa sahlan moom moo gét moomu mm-hmm. vraiment daal ñu ngi ñaan tamit na ko gars yi ak accueillir bu am solo mm-hmm. parce que tamit teg ko ci yoon woo xam ne nii maanaam li muy def dina ci jëlee ak ndam parce que tamit ak lu nit ki bëri bëri bëri xaalis yaa ngi dégg man nañu war nañu jéem fexe daal ba li muy indi pour njëriñu làmb di njëriñu Sénégal ñu xam maanaam mu dugal ko ci yoon yoo xam ne daal mhm. après moom bu ci jógee mhm. dina ci gis loo xam ne ni njariñam la lay doon et puis tam doon njariñu làmb mais mhm. vraiment bàyyam yoon Zarko moom xam naa ne combat ñaari ñaari ñaari ñaari gurum fit dañoo xorobu ñoom ñaari ñaari ñi ñaari ñi kay Zarko rek ak bàyyam yoon kese dëgg la loolu metti lay doon. am na solo bu ñu jógee foofu nag fa nga xam ne moo di Gagé Chérif mu am rek ñaari oto yoo xam ne teg nañ ko en jeu le 15 mai incha allah waaye ba tey rek di ko continuer 4 millions francs CFA le 14 ak 15 mai à Joal 1 million 500 à Mbour le 16 mai incha allah mu mel ni lamb ji daal fi mu nekk nii xumb la def. waaw loolu lamb simple bi ah, boo xoolee. lambi simple ji moo yëngutoo noonu lambi simple ji nag boob ba tey boo xoolee mu ngi dox mhm. vraiment ñuy am ñu ci am ay miss yu amam solo ay 4 millions ay 3 millions lu nekk di ci am mhm. tey boo dee déggee ñu leen ñaari voiture mhm. ça veut dire que kon lamb ji vraiment ami waaw ça avance de moom ñaari ma dem bëri ji waaw jar na ko de ah, de wala ñu dem bëri ji <laughs> am na solo <laughs> buñ jógee foofu ki nga xam ne moo di capitaine Dina ak Sandrep mu mel nii rek combat ba Xaadim Samb taxawal na ko waaw suñ papa Xaadim Samb ñu koy nuyu di ko ziar defe naa taxal na combat bu neex ndax mhm. Sandré mi xale la boo xam ne espoir la si Bawol capitaine dinaa tamit di doomu Yoff di mbër moo xam ne nii ah tamit yaakaares na ko kon daal boobu combat tamit mhm. combat xale la mhm. mais combat espoir la décision ba nga xam ne waa CNG jëloon nañ ko démb nag euh, ki nga xam ne moo di Pape Abdou Fall euh, daloon seen kaw vraiment ba tey rek tax euh, journal bi xëy titré ko li nga xam ne moo di fin de l'état de grâce pour le CNG mu mel nii rek ba leen Pape Abdou Fall dal gars yi dégg nañ ko waaw loolu day li ma si mën a xa li ma la waxoon démb rek laa si waxaat quoi par rapport ak tey CNG bu bees bi nga xam ñoo fi nekk jiite làmb ji defe naa ne ah euh, tey bu fekkente ne dañoo ñëw jiite mhm. di doxal defe naa ne ah dañuy xaar ci ñoom ñu def la raw ka fi nekkoon la mu defoon wala équipe bi fi nekkoon mm-hmm. ça veut dire que maanaam foofu lañ leen doon xaare mm-hmm. mais nag bu fekkente ne dañoo ñëw tey ñu dégg ay coow ay jàppal bàyyil ah, loolu du gën mm-hmm. mais du tere tamit maanaam mbir yi ñu teg ko ci aw yoon waaye daal am na loo xam ne nii moom nañu fexe-fexe moytu ko ba nga xam ne nii daal bañ a mujj puso bi daal mu réer man daal loolu laay wax waa CNC di ko wax yi di ko wax képp koo xam ne compose composant du làmba nga parce làmb ji fi mu nekk nii ñun ñoo ko moom te ñun ñoo ko war a defar. Mhm, mhm. vraiment. Mhm. te muy dëgg euh, tey euh, xibaar yi jaar fandar keppe mu mel ni journal suñu làmb rek ñoo fasaloon tey ay xibaar. Euh, lan ngay tàggatoo tey. waaw di la gërëm ah di la ziar di la ñaanal jàmm di ñëpp ñi nga xam ñoom ñoo ñuy suivre ci Equivox TV. waaw du ñu leen di ñaanal jàmm rek. ami di wax que ni Sénégal yal na fi yàlla def jàmm. Ah, def ko si àddina bi yëpp. weeru koor bi ñu nekk nii yal nañ ci dugg ak nañ ci dugg ak bismillah rahmaan rahim. yal na jeex ak alhamdulilah alamin waaye xam ne moom suma nit la suma xarit Papa Gueye ministère des finances lu mën a ñàkk maa ngi koy bu baax a baax a baax a baax waaye di nuyu tamit l'international Saliou Ciss borom AS a Lorraine maa ngi koy bégee latéral bu sénégalais waaye Youssou Ndoye kenn du moom sama waajooju maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax a baax mm. baax mm-hmm. nekk fële ca Espagne ca basket ba man mm-hmm. tamit maa koy bégee di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy topp. Mhm. di ñu suivre. vraiment waaye waa Petersen moom tamit. Mhm. du ma leen mës a fàtt waaw mhm. waaw noonu la demee am dëgg amuñu seen fay comme ni mu ko waxee rek bu ñu fi nekkee nag euh, di indi xibaar yi c'est parce que yéen koy seetaan te moo tax ci loo xam ne da leen neex rek la ñuy dox fi dañuy daal di yem ak yéen tey nag ci xibaaru tey yi di leen jox dig daje ëllëg insha allah jërë ngeen jëf moom tamit musul am adversaire bu mel ni man bu dee xee maa ko daax bu dee bëre maa ko daax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 yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène